kon loolu bokk na ci ibnu hajar rahimahullahu dafa wax baari wax ju noonu mu ne ñoom dañuy góorgóorlu lool dañuy góorgóorlu lool ci wàllu jaamu yàlla waaye dañuy taawil aay yi mu ne kaanu yataawaluuna alquran ala gayri almuraadi minhu wa يستدبرون برأيهم ويستبدون برأيهم ويتمطعون في الزهد والخسوف وغير ذلك نانا ñoom dañuy taawil alquranul karim li ñu texte yi li muy wax ñoom du ci loolu la ñuy jël dañu wax leneen ñu joxe maanaam yi nga xam ne texte yi du loolu la ñuy tegtal waaye seen raaju mooy seen gisin moo leen doy dañu nekk ay égoïste ci seen gisin mooy seen gisin dong moo leen doy duñ jël gisin keneen waaye dañu teral lool ci wàllu ne dañuy dëddu aduna ak wàllu wala dañuy ragal yàlla subhanahu wa taala nee na loolu bokk na ci ni ñu ràññee ko ñoom xawaari bi loolu moo taxoon ñu ne ñoom du ñu dox ñi yàlla subhanahu màggal ci diine ñu jiitu ci diine ñoom duñ leen jox ñooñu faale wuñ leen ku mel ne saxaaba yi ñoom jàppe nañu saxaaba yi ak ñoom ñoo yem kon loolu dafa bokk ci seen melokaan yi naka noonu tamit bokk na ci seen melokaan mooy xóotal lool ak sonn lool ci jaamu yàlla yi ibnu abbas moom mooy wax mu ne walam ara qawman ashadda ijtihadan minhum nee na gisuma ay nit ñu mel ni ñoom ci wàllu góor góobe ci jaamu yàlla mu ne wujuhuhum mu'linatun min asaari sujud nee na boo gisee seen xar kanam yi rek da lay woon da lay xamal ñii bëri na dañuy julli waaye julli yooyu ak koor bi ñuy def ak jàng alquran bi lu ko yàq mooy déggin bi ñu am ci diine déggin bi ñu am ci diine moo tax julli yooyu lu mu bëri ba baaxut koor jooju lu baax bëri bëri baaxul jàng alquran bi lu mu bëri bëri li ñuy def baaxul firiwul mbiri yooyu baaxul mbiri yooyu yëpp jaamu yàlla la baax na waaye ci ñoom ñoom ñoom place bi moo baaxul mooy ñoom ci seen bopp ñoo baaxul ndax lu jiitu ci ñoom mooy déggin ju bon lañu am ci diine kon am déggin ju bon day tax yàlla bañ laa nangul say melokaan say jaamu yàlla subhanahu wa taala bokk na ba tey ci seen melokaan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ne ku leen rey am nga payoor ju mat xoola gaa yi di jaamu yàlla gaa yi di julli di jaamu yàlla di woor yonent bi sallallahu alayhi wa mu ne inna fi qatlihim ajaran azima ku leen am nga payoor bu mag mu ne man bu ma yàlla mooy ba ma dajak ñoom dinaa leen rey rey ju bon dinaa leen fa rey mu ñëw ci asar tuubaa li man qatalahum wax ko aw qataloo waaw tuubaa mooy mbaax ñeel na ki nga xam ne moo leen rey wala ñoom ñu rey la boo leen reyee am nga lu baax buñ la reyee am nga lu baax kon li yëpp dafa bokk ci seen melokaan bokk na tamit ci seen melokaan yasfikuuna damal xaraam mooy deret ji xam ne ju yàlla waxoon deret deret xam ne bu yàlla waxoon nañ ko sàmm buñ ko tuur ñoom dañ koy tuur jullit bu nekk ñoom bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ne deret jullit dafa araam ñu tuur ko ñoom dañuy jalgate loolu dañuy tuur deretu jullit ban nan lañ koy tuuree ci ñaari anam dañuy tuur seen deret ñoom ci seen bopp dañuy rey seen bopp dañu xaru dañu xaru ñoom ci seen bopp dañu xaru te nit am na lu wax ci xaru kon benn la ñaareel bi jamono ji ñuy xaru ñu ngi rayaale ay ñeneen ñu ngi ray seen bopp di rayaale ñeneen kon loolu yëpp dafa bokk ci seen melokaan mooy tuur deret melokaan bi nga xam ne ñoom rek ñoom ñoo ko jagoo amul ñeneen ñu nuroog ñoom mooy bii di ñëw mooy annahum awwal man faaraqu jamaat al muslimin ñoom ñoo njëkk tàqali ko ci wàllu diine ñëpp benn mbooloo la ñoon ñoom ñoo njëkk génn ci mbooloo lislaam ñu bere ñoom ñoo njëkk bere annahum awwalu firqatin faaraga jamaatul muslimin wan azala anhum ñoom ñoo njëkk beru ci kuréel yi yeneen kuréel yëpp seen ginnaaw la ñëw bi ñu génnee ci la suite yi ñëw génn dem ba yàgg jaxam yi di ñëw ñeneen yi di ñëw noonu yeneen kuréel yi di ñëw waaye ñoom ñun ñoo njëkk ñoom ñoo njëkk bokk na ci seen melokaan bi sallallahu alayhi wa sallam ci hadis ibnu mu ne dégg naa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ëpp na ëpp na fanweeri min salaasina marra dégg naa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wax lan la wax kullama xaraja minhum qarnun quti'a akbar ñoom jamono su nekk dañu am doole am mbooloo na saa yu seen mbooloo génne rek mel na benn béjjén bu sax rek dañ koy tagg ñu commencé waat azar dem ba sa yàlla waat am beneen mbooloo bu jóg am doole tuuti di xeex ñu dagg mel na béjjén buy sax ñu koy dagg di sax ñu koy dal jul kullama xaraja minhum qarnun xutia saa benn béjjén génn ci ñoom saa ñu commencé am doole tuuti rek dañ leen di massacrer rek ñu commencé waat azar ñeneen waat ñëw kon ñoom amuñu doole waaye nag est-ce que dinañ ci jóge dañu def ñu ngi fi beneen bi beneen sifaa bi dafa nuroog bi bi weesu nii mooy ñoom dañuy exercer jamono ju nekk dañuy nekk ci jamono ju nekk nabi sallallahu alayhi wa sallam dafa ne kullama xaraja minhum qarnun qute hatta yaxruja fi iraadihim ad-dajjal nee na saa yu ñu feeñee rek dañ leen di dagg mu yu ñu feeñee am tuuti doole am iraab al iraab yaani al jaysul azim al iraab bil ayni wa al iraab te mujjanteelu jamono dañu am lan am jaysu bu mag armée bu mag a mag a mag ci armée doobu dajjaal ci lay génn ànd ak ñoom kon ñoom dañuy dem ba mujjanteelu jamono dañuy def mu ba mujjanteelu bokk na ci luy wone dañuy def fii ba mu jëntali jamono mooy jamono Ali dafa xeex ak xawaari bi rey leen ñoom ñëpp ba des ay ñeenti nit ñooñu daw tasaaroo ñii daw un dem Oman santanatu Oman dem foofu ñu def ko benn dawla xawaari bu mag mooy dawla al ibadiya ba tey ay xawaari bi ba tey ñenn ñi daw dem maghribul arabi ñu dem al maghribul arabi y Tunisie ak Maroc ay àll à l'intérieur ñu installé ko benn dawla bu mag a mag dawlatu xawaarij bu mag ñu lay tuddee ak dawla ar ay année ba dawla fatimiyya ñëw sanata miatayn wa sab'in wa tis'in hijri ñu isqaat dawla al-fatim al al al ibadiyya ar-rustumiya ñoom ñoo leen daaneel dawla fatimiyya bi installé woon Tunisie jëlee foofu dem woon dem Égypte ñoom ñoo. تبع القاهرة مدينة القاهرة ñoom ñoo daanal dawla Fatimiyya dawla Ibaadiyya bi Rustumiyya bi jamono jooju ulama maliki yun dañu bëri woon maliki yun ñoo nekkoon Andalus ñoo nekkoon Alazan ñoo nekkoon Maroc ñoo nekkoon foofu yëpp ñu bind ñu bind ay téere yu bëri di taxdir nit ñi ci waxaabi al waxaabiyuun al waxaabiyuun wal waxba waxaabiyuun wal waxba ñooñu ñoo ñaan du waxaabi ñii de du fi ne naan léegi Abdou euh, Mouhamed ibn Abdou Wahab boobu Mouhamed ibn Abdou Wahab ñëwagul ñoom ñoo ko jiitu luy toll ci ci suñu ñetti fan luy toll luy toll juróom-ñeent juróom-ñeenti téeméer siècle ñoom ñoo ko jiitu kon ñooñu bu ñu ñëwee yàgg na boobu dawlat boobu ulama Maalik yi ñoom dañu bëri woon àndalo àndalo bëri Madina Xayrawaan ñoom ñoo doon bind dinaa moytu leen xawaare yi ba ma waaye bind na benn mu tudd tartiib xatam taarix mu ne da nga di jàpp ne ulama maliki yu ne li ñu bindoon bu yàgg da ngay jàpp ne Muhammad ibn Abdul Wahab lay wax nee na du Muhammad ibn Wahab Muhammad ibn Wahab la kañ la ñëw mu ngi judd sanata alf wa mia wa xamsata ashar mille cent quinze kooku koy mu yàgg ñële bi dawla ba bi ñu dawla mu ngi nekk deux deux cent quatre vingt dix neuf fidélité loolu dafa yàgg ñaareel dañu sorante mu ne la li nga di yaakaar ni ñoom kon nit ñi yàgg lañu kon noonu lañ tasaaroo Aliou Achari mooy Aliou bi mu ñëwee ba tiim leen Aliou ne dem leen ngeen wër ci ñoom yenn salaatam joxe na woon benn tegtal ki leen di jiite loxam bu ngeen xoolee ci suufu loxam ci poqutaanam da dafa am nu mu mel dafa mel na kiiw jigéen dafa mel ni weenu jigéen moo ko fat ñu dem xool wër wër wër wër wër mu am kawar mu dem ba wër gaa yi dem wër gisuñu ali ne li ma déggee nabi sallallahu alayhi di wax loolu munul nekk dem leen wëri gaa yi dem dellu wër wër ba toll gisuñu waa ji ne ali gisuñu de ali ne ma dem leen wëri nabi sallallahu alayhi wasallam lu ma wax du waxal ñu dem wër wër wër ba gis waa ji ali ne sant naa yàlla nabi sallallahu alayhi wasallam lii la waxoon ñii la doon wax ñii ñooy xawaari nee na ku leen rey dina am tiyaab ju bëri gaa yi di ndokkeel ali gaa yi di naan ñu ne ali alhamdulillahi alladi araha minhum al ibad cant ñeel na yàlla mi nga xam ne tey may nañu ndam yàlla mi nga xam ne tey noppal na mboolem jaam yi ci musiba xawaari ji xawaari ji jeex nañu nañ dëddu ali lan la leen lan la leen tontu ali nee leen kalla walladi nafsi bi yadi inna minhum la fi inna minhum la fi aslaabi rijaal wa inna minhum laman laman laman yakunu maa dajjaal Aliou ne gaa yi jeexuñu de ngeen ne jeex nañu mu ne giñ naa ci yàlla jeexaguñu ñii dinañu def ba mujjantal jamono dañuy def ci adduna bi kon mbiru mbiru xabaar rek problème la nee na jeexaguñu de am na ñi nga xam ne ñu ngi nekk ci seen seen ndigg bàyyi juddoogul am na ñi nga xam ne ñooy mujjee ci mujjëndal jamono la ñuy ñëw ñoom ñooy ànd ak dajjaal ci direction kon ñooñu seen problème jeexul kon bu leen yaakaar problème xawaari jeex waaye li am solo mooy yenn salaaba nee na saa yu ñu demee ba am doole xaw kër dañ leen di gor dañ leen di gor di demaat ba sax am doole dañ leen saa yu feeñee rek commencé kon na julli ñi rek yàlla day indi ay jullit yu am doole gor leen waat di tàmbaliwaat ak kon loolu dafa nekk benn mbett bi nga xam ne dund boo xam ne bépp mooy xawaare dund mu am doole ba daanal lislaam mu nga def bu baax alors kon ñu jàll bokk na ci seen melokaan mooy fii xoloo bi ñu doyet mooy dañaa jenn dañuy gis aay yu leer duñ ko jël mais aay yi nga xam ne aay yi nga xam ne mutasaabihaat la tudd ci mutasaabihaat la bokk yooyu la ñuy jël li yàlla waxoon fa amma alladina fi qulubi zaygun fa yattabiuna ma tashabaha min ibtigaa alfitna wa ibtigaa taawili wa ma yaalamu taawilahu illa allah moom la ñuy def dañuy bàyyi ayu leer yi xool ay yi nga xam ne firam leeru ñuy topp yooyu di ko jéem xool di gës di wax yooyu loolu moo tax borom xam bu ñëwee ci aay yi ñu ne aay yi dafa dëppoo ak xawaari bi xawaari yi dañuy dugg ci aay yi alladina yattabiuna ma tashabaha min xawaari yi ci lañ bokk ci lañ bokk kon loolu ci seen melokaan la bokk bokk la ci seen melokaan jundoon nañ ko sànq mooy kappiruuna bil kabaayir nee nañ su def benn bàkkaar bu mag yow génn na lislaam moo tax ñu ne Ali génn na lislaam ndax ci seen gisin Ali deful kabira de mais ñoom ci seen gisin nee Ali deful sax kabira na tuub ñu dellu ci moom bu tuubul duñu mës a dellu ci moom Ali nee na lan laa def ñu ne ko xakkamta rijaala fii kitaabillah jël nga ay góor te taxawal leen di leen atteloo ci téere yàlla te yàlla waroo jël ay góor di leen atteloo ci téere yàlla ci la Ibn Abbas jógee dem di wax ak ñoom foo xam ne ko sànq Ibn Abbas ne yàlla nee na bu dee da ngaa ihram ci aj nga rey nga rey rëbb bi nga xam ne ci jéeri lay nekk nga rey lan la yàlla wax yàlla dafa ne na leen jël ay nit ñi dem àtte loolu yàqum bihi zawaarane min kum hadiyan baaligal kaawa loolu la yàlla wax mu ne bu dee deret deretu lu ñuy rëbb ci jéeri lu mel ne njombat nga ray ko lépp nga ray ko wala lépp nga nga ray ko fekk yaa ngi ànd ak sa armal dañuy jël ñaari nit ñi ne nañu doon xool loolu lan lay lan lay tolloo lu nekk comme ni ko yàlla waxee woon lu nekk loo ray luy tolloog moom ngay ngay génne gis nga loolu yàlla nañu xool ñu maanu dem àtt la Ibn Abbas nee na ah bu dee lii ci deretu lan deretu xayawaan la yàlla wax bu dee deretu jullit bi nga xam ne sallallahu alayhi wa sallam nee na bi mu waree kaaba gi mu ne yow kaaba gi am nga gëdd lool waaye yàlla waaye deret jullit deret jullit jullit moo la ëpp gëdd fuuf fa yàlla tout deret jullit nga toj kaaba gi mooy mooy danger nga ñëw ray benn jullit toj kaaba gi moo ko gën a moo gën a tuuti bàkkaar ak nga ñëw jàkkaarloo ko mbokk jullit nga ray ray jullit moo ëpp bàkkaar ak toj kaaba mooy bu dee loolu la lu tax duñu duñu wax duñu wax ay góor yu ñëw àtt diggante ñaari jullit te yàlla waxoon na ay ñaari kuréel jullit bu dee dem ba xuloo lan la yàlla waxoon mooy nañu dem waxtaan ak ñaari kuréel yooyu ba ñu dellu ci yoon yàlla subhanahu wa taala ci àtt kon lii def bokk ci seen melokaan bokk na ci seen melokaan dañu ne ki ñuy xuloo ñuy joxe ak moom di xeex ak moom ñoom day jàpp dañuy jihaad dañ la nootee ray sa doom mu ngi fi donc jullit nga sa doom mu ngi fi sa soxna mu ngi fi dañ ganima dañuy sa alal ganima ñu jël sa waatel sa bien ñu jàpp leen comme ñu ñuy jàppee jigéen yéeféer jàppee doomu yéeféer def leen ay jaam nee nañ bu ñu xulóog jullit ba jabet moom dañu jël sa doom def leen al muxaalif yaakuduuna maalahu ganaman wa awlaadahu wa zurriyatahu wa azwaajahu sabiyan loolu moo tax bi ñëwee ñu xeex ak Ali bi Ali xeex ak Talha ak Zubayr mooy ban Madaka al Jamal bi ñu xeexee ba ñu ne Ali dañu bëgg nga séddale ñu alalu ñoom Zubayr alalu ñoom Talha alalu ñi àndal ak ñoom Aïcha ñoom Aïcha ñi àndal ñoom seen alal dañu koy séddal ndaxte xaniima la andi na ne yéen beneen ban xaniima ñii suñu suñu mbokk di ay julli ngeen naan xaniima la xaniima ci yéefar la koy amee ñuy julli lañ ñu ne kon lu tax nga xamal nga ñoom mu ne dañaa wuute ñu xeex waaye ay mbokk lañu ñu ne déedéet da ngay séddale da ngay séddale Ali ne waaw dégg leen ma séddale maa ngi séddale Aïcha ni ci ñoom la bokkoon suñu yaay Aïcha kan moo koy jël ne dañ kaa fab ñu akbar comme ni ngay jëlee jigéen yéeféer ci guerre nga ne kii maa ko jël daf ko soxna ndaxte dañ kaa jël ci guerre bi kan mooy jël Aïcha daf ko noonu ci yéen daa yëpp sëgg rusul rus na Aïcha radiyallahu taala anha soxna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam kan ne dafay sab ci ñoom ñoom ñëpp ñu dus ali ne faro aywa tafarraqu anni kon Ali dafa yàgg amal problème ak ñaan xawaari kon ñoom dañuy gis loolu bokk na ci li ñuy gis mooy njiit bu dëng duñ la mënta reconnaître ñun islam lan la wax ci bu dëng nañ ko muñal en tant que terewuñu julli en tant que waxugul wax di nga xam ne kéefeer bu fes la bu jëlee alal nit ñi bu tooñee lu mu mënta doon nañu muñ mu nekk ci biir wa in duriba zaharuka wa in duriba zaharuka wa uxida maaluka buñ jëlee sa alal dóoral la na nga muñ ñoom nee nañ déedéet duñu muñ ñun bu ñu gisee njiit bu jàng rek dañuy jël jaar jubbanti ko xeex ak moom kon loolu dafa wuute sunna yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam ak li yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale kon loolu moo tax ñuy génn di xeex ak buur yi te nee nañ képp ko ànd ak buur ju gën nga nekk ci ronam nga noppi ànd nga ñoom bu ñu koy rey dañ lay reyaale yow loolu moo tax ñoom bu ñuy xeex dañuy ñuy rey ay policier rey ay kii ñëpp ay daga buur la ñoom buur bi ñoo ànd ñoom ñëpp benn la nañ leen rey kon loolu problème bu rëy la problème ko waari nekkul problème bu ndaw mu bàyyi ci xel bu baax a baax bokk na ci seen melokaan bi dañu rek yeneen bi Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na annahum kilaatu naar Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ñoom ku dem safara bi ñu leen fekk ñuy mbow ñoom ay xaj lañu ñoom dañuy jàpp safara ak lu ñu def ci lu baax ñu julli julli lu ñu wóor wóor lu ñu jàng alquran alquran tant que dañu wuuteeg Yonent bi sallallahu alayhi julli ñi ay yéefar la di xeex ak ñoom di tuur seen dara ñoom ay yéefar lañu kon deretu jullit li ñu war a respecté l'islam bu rëddee waruñu dal waru ñu jiital suñu xel dañu war a def na ak lan ànd ak teg bokk na ci seen melokaan tamit mooy yarudduuna sunna idaa lam yarid sarahatan maa yu'ayyiduhu fi l-Qur'an nee nañu sunna bépp sunna bu mu mënta doon bu dee amul Qur'an aaya Qur'an bu ñëw di ko dooleel rek dañu fay delloo sunna boobu te ñaata ñaata ay atte yi nga yi nga ne sax na ci sunna te ñëwul ci alquran loolu dafa bëri kon loolu te atte yooyu yëpp ñoom dañ koy delloo loolu moo tax ñu ne ñoom. ñu ne kon rajmu duñ ko def rajmu rajmu zaane duñ ko def ndax Quran tuddul rajmu jal jal rek la tudd tuddul rajmu te Umar waxoon na Umar bu soxla buñ ko nee aaya ko ren amoon ñoom ñoom rek nekk wuñ noonu bokk na ci wàllu sàcc nee na lu nit sàcc rek dañu war a dagg salom amul nisaab amul nisaab loolu mën sa sàcc dañu dagg salom ndax nañu nisaab lu ci alquran karim kon loolu yëpp ay melokaan yi nga xam ne ñoom dañ caa dañ si ràññee la kon lii bokk na ci ci seen melokaan melokaan yi bëri na waaye ñu tënkal bokk na ci seen melokaan mooy yad'uuna ila ila ihtizaari mujtama al muslim dañu woo nit ñi ñu ne nañu mais jullit bu nekk war na gàddaay société bi nga xam ne day àtteel yàlla bëggul société bi nga xam ne ku leen jiite mooy lan mooy yéefar wala ku leen jiite mooy lan mooy jullit bi nga xam ne faasar la société ko da nga war a gàddaay waroo liggéey waroo jàng foofu ci seen école waroo liggéey ci gouvernement yooyu waroo nekk foofu police waroo nekk foofu benn fonctionnaire da nga war a gàddaay société boobu fekk si la ñoom ci àll bi boo ko defut saa yu ñëwee di attaque dëkk boobu kuñ la fekk dañ la rayaat ñuy raay ay jigéen di raay ay xal di raay daw nekk ci ci xeer yi daw beddeef bu ñu àndal jëleen bi kon société islamique yëpp dañ leen di gàddaay te dañuy naan wuju yajibul hijra yajib maa la al hijra gàddaay nee na loolu ci seen diine la bokk gàddaay société yi kon lii lenn la ci seen melokaan ñu dellu insha allahu taala ci subaxaat yi tudd ci tuuti ndax waxtu bi sori na lu jiitu conférence seen beneen bi ñëw ana la wasa ala moom lan la dañu jël yenn subaxa yi seen subax dafa bëri waaye dañu jël yenn benn subha subhatun fil iman wa radd alayha ñoom xawaarij yi na lañu gisee lan mooy iman iman benn mbir la juz'un aw al iman a la yatajazza dañu gis iman benn mbir la global bu global benn benn mbir la rek bi nga xam ne mënuñu ko détaillé imma nga nekk julli cent pour cent wala nga nekk si yéefe cent pour cent amul leneen amul leneen imaam nga nekk jullit cent pour cent wala nga nekk yëfër cent pour cent munoo nekk jullit faatiq loolu ñoom gëmuñu al faatiqul milli gëmuñu loolu faatiqul milli mooy ñi nga xam ne jullit nga waaye yaa ngi am ay bàkkaar ñoom ñu ne amul imaam jullit cent pour cent wala yëfër cent pour cent ñaari dara jël rek ñoo am dañ naa déggal kon ñoom loolu la ñu gëm waaw loolu lu koy delloo ci alquran dafa bëri ziyaadatul iman wa nuqsaanuhu alquran day yokk di waa ngëm day yokk di wàññeeku loolu xam nañu lu am la nit ku nekk boo toogee da ngay yëg moment bii kat sama ngëm yàlla yokkoon waaye moment bii kat sama ngëm yàlla wàññeeku loolu da nga koy yëg gis kon loolu jarul nit yi sori beneen bi mooy ci wàllu ak takfir bil kabira وجهاؤنا هل جاء العصر لم يصل kon ñoom loolu lañu wax dañ naan lu dëgg yàlla daal benn la kullun laa yatajazza wal kufru kullun laa yatajazza loolu lañu wax na sa iman Abu Bakar ak iman Jibril ak iman yéen bi sallallahu alayhi wa sallam iman iman kufur tamit amul ay darajaat kufur yëpp benn la sa nit bu nekkee yéeféer bu weddee kufram ak kufur iblis ak firawna ñoo tolloo ak ñoom Abu Jahl ñoo tolloo nee nañ amul amul darajaat wala darakaat loolu amul ci darajaat wala darakaat amul ci kon bu ñu xoolee hadis bi sóobul iman al iman bil umur al umur sóobala alaha lu tax yéen a ne alaha alaha qawlu la ilaha illa allah wa adnaha imaamu su ala ana sari mu ne ala mu ne adna lu ci gën a kawe ak lu ci gën a suufe kon kay loolu ñoom dañu ne déedéet lépp benn ñoom seen wax jooju dafa waroo ak sunna dafa waroo ak nit ñi li ñuy yëg ak xis ak sitra dafa waroo loolu nañu déglu ñoom dañu ne imma nga doon jullit wala nga doon yéefee loolu rek leneen amul Ibnu Qayyim la wax mu ne inna rajula qad yajtamiu fiihi kufrun wa nifaaqun shirkun wa tawhiidun taqwan wa fujuur nifaaqun wa iimaan haadaa min a'zami usuuli ahli sunna wa xaalafahum fiihi gayruhum min ahli l-bidaa' kal xawaarij Ibnu Ibnu Qayyim dafa nit mun nga làmboo yenn mbir yi nga xam ne ngëm yàlla la yenn sifa yi nga xam ne ngëm yàlla la yeneen sifa yi bu ñu ko doon natt di ko xool kéeféer la nga ne mu nekk ci nit ki li nga xam ne boo ko na natt di ko xool mun nga ne lii sënku la mu am leneen lu muy làmboo ci ay jub wala ay melokaan boo xoolee da nga naan lii taw biir la mu am li nga xam ne lii taqwa ragal yàlla nga nga xool leneen nga gis lii fujuur la nga gis lii nifaaq la nga gis lii iman la ne la loolu yëpp ahlu sunna dañ ko saxal mu ne wa haada min aadal usuul ahlu sunna ahlu sunna li lañ gëm li leen gëm mooy benn nit ci boppam nit benn nit mun na làmboo ay jëf lu baax lu bëri yu bon ak lu baax ñoom waxuñu loolu ñoom dañ ne imma nga baax cent pour cent wala nga bon cent pour cent ñoom lan lañ gëm ñoom xawaari bi naka noonu tamit ci wàllu ak tafsir bil kabira mooy te lu tax ñuy naan ku def bàkkaar bu mag yéeféer la bàkkaar bu ma ku ko def yéeféer la ndaxte ñu ne bàkkaar bu mag ku ko def yow zaalim nga nee nañ yàlla moo ne wa man lam yatub fa ulaa'ika humu zaalimuun wa man lam yatub bi yàlla ne wala tanaabazu bil alqaab bi dal ismul fusuuqu ba'da al iimaan wa man lam yatub fa ulaa'ika humu zaalimuun mu ne wa ne ne fa ulaa'ika humu zaalimuun ñoo ñooy tooñkat yi ñoo ne nag tooñkat nag moom mooy yéeféer inna shirka la zulmun azim ñu ne kon nag moom mooy yéete ndaxte shirku zulmu la kon nag zulmu la loo ci def nag zulmun te zulmu nag boo ko deful imma nga tuub nga nekk ak jullit boo ci wéyee yow yéefar ngeen ngi wéy te waa ba xayru sahi ahlu sunna bu ñu loolu ahlu sunna loolu seen pas-pas ahlu sunna mooy boo ko defee yu rëy yi na nga tuub boo tuubul yàlla tëpp na la waaw boo deewee yàlla mun na safar bu ko neexee tamit mu bañ laa dugal safar baal la waaye nag bu boo tuubee yàlla da lay nangul ñoom dañu naan imma tuub wa imma safar tuub rek wala safar lenn amul kon wax bu yàqu la wax bu yàqu la beneen bi ñoom xawaari bi murtatibun kabira moom yéeféer la allaaxira yéeféer la tamit safar la jëm bu dee murtatili ñoom dañu ànd ak ñoom ci àtte jooju waaye ci allaaxira ñu ne allaaxira murtatibun kabir kabira laa yakunu taxta al masiya ñoom masiya dañ ko dàq insa gafarlahu wa insa abdalu ñu ne loolu amul nee na yàlla bu ko wax bu ko defee rek yàlla kon yàlla respecté wul kàddam waliyaadu billah ndax yàlla wax ku def lii ma def la lii yàlla dafa tëkku woon ne ku def lii ma def la lii nee nañu boo ñëwee nag te tuuboo yàlla baal la lu mu la tëkku woon defoo laa ilaha illa allah ñu fàttali yàlla waxoon na lan sa yàlla lan sabakat rahmatuhu maada azabuhu sabakat rahmatuhu azabuhu wa rahmati wasiat kulla shay ñoom hmm. fàttali nañu loolu bu dee murtadil yi ñoom li ñu wax mooy murtadibul kabira fii ci àdduna dañuy jëflante ñoom comme ni ñuy e jullit dañuy jëflante comme ni ñuy jëflante jullit mooy duñ la rey dañ lay baax sa bopp nag di la seetaan boo deewee rek ñu jàppale li fenn xaalis mu xamal fi mu waaye ci àdduna duñ la dóor duñ la def daal dañ lay dañuy jëflante ñoom comme ni ñuy jëflante jullit ba ma tax ñu ne murtadibul kabira bay na fii darajatin aw fii manzilatin bay na mën na nekkul yéen la cent pour cent nekkul julli cent pour cent mu ngi ci dugg bi ñoom loolu lañ waaye bu deewee moom te tuubul ne ñoom ak xawaari yëpp dañu naan xaalidun muxalladun fi naar waliyaadu billah beneen bi mooy ci wàllu njiit yi waaw ci wàllu njiit yi ci wàllu njiit yi ñoom ànd na njiit yi mu njiit buy tooñ nee nañ kuy tooñ du doon njiit ñu ne yàlla subhanahu wa taala moom moo wax laa yanaalu ahdiya zaalimuun sama kolloore du ci jot tooñkat yi jiit buy tooñ nag yow kolloore yàlla doo ko jot te jullit ñi ku leen war a jiit mooy ku gëm yàlla waaye ku àndul ak kolloore yàlla du leen du leen waru leen jiit loolu moo tax ñuy xeex ak moom ñu ne waat dañuy xeex ak ngir du bon min baabi al al inkaaru munkar ngir tere lu bon loolu tamit wax nañu mais bu ñu dellee ci sunna yeneen bi sallallahu alayhi nee na sama gannaaw dina am ay njiit ñuy ñëw ay tooñkat lañu waaye muñ leen muñ leen saxaaba yi ne afala nunaabiduhum ñooñu bu ñu ñëwee di jalgat ndax duñ jël suñu ngànnaay jàmbaar ak ñoom xeex ak ñoom ñu ngi sallallahu alayhi wa laa bu leen def loolu illa an taraw kufran bawaaxum bu ngeen gis kéeféer ju ne ni bi ne kenn mënu kaa taalu lu nga xam ne lu masalan diis mi ñëw ne kenn du julli te jàmm yëpp ne benn julli du ko jullee moom dañuy xeex ni la ma tax sallallahu alayhi wa sallam ne maa aqaamu maa aqaamu fiikum salaat ak tant que ñu saxal julli ñu julli bàyyi leen ngeen di julli bu leen defal ñoom mais ñoom gisuñu loolu xawaari bi ñoom gisuñu njiit yooyu dañu war a xeex ñoom dañ leen war a jëlee fii ci kaw suuf naka noonu tamit bokk na ci li ñuy jamee njiit yooyu nee nañu njiit yi dañuy dem di àtte lu yàlla lu yàlla wàccewul te yàlla nee na wa man lam wa man lam yaxkum bi ma anzala allah fa ulaayka humul kaafiruun boo seetloo ci am sunna wal jamaa fa ulaayka humul kaafiruun lan lañ ko waxee day naan man xakama bi gayri ma allah mustahillan mustahillan li daal fa kaafir ku àtte lu yàlla wàccewul te nga gëm nga gëm ci sa ci sa bopp nga daganal nga gëm li may def nii lu dagal la dara newu ci wala moom moo gën sax àtte yàlla kooku yéefar mais kuy àtte lu yàlla subhanahu wa taala wàccewul waaye moom xam na ni muy def nii bu ko yàlla jàppee baaxut ci moom kooku kenn du ko yéefar loolu kooku jullit la gisu kon dafa am ay mbir dafa am ay mbir balaa ñuy naan ki yéefar la loo ko tax ulama yi bu ñu ko ñëwee di tafsir dañ naan kufrun doona kooku li kéefër la nga xam ne nekkul kéefër bu mag kéefër bu ndaw la nekkul kéefër bu mag kufr duna kufr yaa ni kabira dina kabira kon loolu foog nit ki xam ko jàng dellu ci mën a xam loolu mën a xam loolu kon lii ci gàttal insha allah taala la ñu waajaloon pour fàttale ko suñu bopp fàttale ko mbokk yi lu ci jub ci yàlla subhanahu wa la bàyyi ko lu ci wàññeeku wala la ci motul tamit ci nit ki doon jéem rek la ñu ñaan yàlla subhanahu wa taala yàlla na yàlla baal suñu bàkkaar yàlla na yàlla motal suñu manquement yàlla na yàlla bindal ñu ñëw ak jëkk ak toog aqulu ma tasmaun wa astaghfirullah li wa lakum wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu bu dee am na kuy con def contribution wala kuy laaj wala kuy leeru leneen bi balaa nga ko mën a def incha allah